jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu am avons nu ñu koy defee saa su ne de émission autour du micro autour du micro nag tey di dalal Jambar. Jambar, la ñuy dalal Jambar, là laa koy ah. chat, le mouvement Y en moi je suis le gante ji ci émission bi ndaxte xam nga mouvement Y en comme d'habitude nous na aussi fait de lance ci F24 bi nga xamné samp nañ ko mo di kuréel bu regrouper les forces vives de la nation am seen plateforme de xeex contre euh, plus particulièrement la troisième candidature euh, du président Macky Sall ñom nak comme d'habitude dañ ci indi seen contribution chat euh, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. di mhm. nuyu ñëpp ñi nga xamné ñi ngi toog di setan di wax né kontante la ñëwaat fii. Mhm. di profité ci occasion bi di la massaw ci yi la fi daloon. Mhm. dal tawit say morom dal yeneen mastaw wala sénégalais yi nga xamante ñak nañ ci sen mbokk. mais aussi ñi nekk ci ay jafe-jafe yëpp. Mm-hmm. waaw comme d'habitude kër gi hein kër gi euh, euh alors inspiration bi dafa ñëwaat. oui xam nga kër gi au départ c'était un choix. Mm-hmm. ñi dem ba benn moment mu nekk une obligation. absolument donc bi ñuy commencer rap on avait le choix entre nekk ay star wala nekk ay rôle modèle. Mm-hmm. ñu choisir nekk des populations, à chaque fois, le mondial, d'éternels opposants. Éternels opposants. On s'est opposé à Diouf, à Wad, aujourd'hui à Maki, et demain certainement au prochain président. Absolument. Parce que nous rester sur une ligne avant-gardiste. Mm-hmm. Maintenant, société du film Toll, la responsabilité d'un artiste, ce n'est pas de divertir, ce n'est mm-hmm. pas du foyer, du Notre rôle aujourd'hui, pour nous, responsabilité de pour le ñu ah artistes a là. ok alors on va regarder Badolo hein. Badolo ñu seetaan club bi euh, nag décortiquer ko véritablement sur la situation politique au Sénégal et puis avec les forces vives euh, bi ngeen objectif principal. joxaguma foofu set plat waay askan wi jox ma cinq yu mujj yi askan wi waa dolli ma yeneen cinq bokk suuru ma de. baadalo nga waaye laaj nga benn ñu jox la laaj ñaar ñu jox la nga bëgg laajaat ñett nii ne pas marcher plus de deux plats consécutifs deux waaye yërëmal askan wi. chargeur casque bluetooth ma jaay chargeur casque bluetooth ma jaay écouteur écouteur écouteur sama gars yi chargeur bluetooth casque ma jaay eh sama gars yi bluetooth casque chargeur ma jaay sama waa yow du yaa yootoon boutique bu ci bopp kon bi kon yow fii nga mujjee ah soxna si tubaab yi ñu ngi jaay lépp moo tax boutique na table yi ñu doon jaay chinois ngi jaay lépp moo tax table yëpp ndërmeelu maa ngi ci ambulant bi moo tax mu demee nii dëkk bi dafa maki chargeur ma jaay chargeur ma jaay alors affaire baa ngoog baa dolloo inspiration bi fan la ngeen ko jëlee wax ngeen ay termes yu garaaw la dama ragal xam nga mag dafa mën tëje hmm. wax ngeen ay termes yu garaaw ci biir wax ji hmm. dafa mag Macky comme kuy tëj ci eh, émoticône <laughs> mën naa tëjee ci lu dëgg la alors expliquez ñu. Baadoolo triple XL du sax Baadoolo rek. triple XL waaw triple XL. non boo dégg ci sound bi ñoo ko wax et on l' assume virgule boo dégg ci musique bi on l' assume. Mm-hmm. le son on a rappé deux couplets. Mm-hmm. mais on a imagé six couplets. ok parce que pour ñun le début du son, c'est pour permettre à ce Sénégalais-là, quand le débat est fou, les gens lui parlent de constitution, article binaire, binaire, nous simplifier le plateau mhm. pour que nous sachions mathématiques là, 1 plus 1 égale 2, amul leneen ki nga il va entendre les choses wax nañ ko c'est un sénégalais qui lui gagne-pain un ñu voyons à quel point l'arrivée des multinationales veut hmm. des Chinois à tuer ce secteur informel-là, bien qu'on déjà à l'agonie. Hmm. Donc, à travers ce son, on a voulu vraiment permettre à tous les Sénégalais de s'y retrouver. Hmm. mais les lu que nous l'assumons à 100 pour cent lu que nous fekk ñu góobe ko ñu gar ko. mais Macky Sall sax waxagul na candidat la tay da ngeen. ku bëgg troisième candidat. mooy baadoola bi. waaw ku bëgg troisième mandat la. parce que réew mëno ko ñëw ni nga ko ci jamm

mais waa jooju doon jaay bagage yi ambulant bi daf ma marqué man fin boobu dafa daf daf ma marqué quoi ma ne ils ont réussi mhm. wan sénégalais yi na leen comment mhm. suñu Sénégal léegi français marocain turc chine chinois ñoo ci teg loxo ak indien yi waaye ñoo ci teg loxo et puis regarde ce gars suñ première vidéo jógu fi moom moo nekkoon ci boutique bi moo mhm. doon wax fi dara seetlu fi une deuxième vidéo de bi ça Sai, c'est lui qui avait la table. Mm-hmm. parce que li ko expliqué il y yenn multinationales une multinationale, nañu fi une ay grandes surfaces. les grande surface en Europe tu ne le retrouves pas dans la ville. absolument c'est en dehors. c'est en dehors de la ville. Mm-hmm. mais ici dañ à proximité business sénégalais ba nga xam ne koy contre développement. Mm-hmm. contre nous améliorer cette vie. on est d'accord mais est-ce qu'il serait pas plus important d'appeler les, commerçants sénégalais Nous sommes autour d'une table discuter de comment nous a level parce que donner tendre la main à ton secteur privé c'est de permettre à ton secteur privé de s'ouvrir à d'autres horizons mhm. voire plus grand, et il y a une initiative du mais à chaque fois pour me défouler, il faut nous faire appel à d'autres dans les règles ce secteur privé mhm. donc le gars boutique <laughs> jàllo bi ci kon ñun ñëpp am nañ fa page. waaw da ngay ñëw waa jàllo xool jox ma foofu ataay ba après waaye. wala jox jox maire bi ñëw jox ma ceeb waaye ba Pape Alé wàcc. waaw mais demal ci multinationales yi seen boutique nga dugg nga leen jox ma ceeb ba maire bi wàcc wala ba paa bi wàcc. buñ la ko defal. Mhm. donc c'est un truc très sénégalais après les gens vont dire non yenn grande surface yi c'est vraiment accepter le développement non d'accord on est d'accord. ay sénégalais ñoo fi. mais ça doit pas tuer le petit commerce. justement ay sénégalais ñoo fi liggéey on est d'accord mais ci yan base donner du travail à 1000 Sénégalais et assassiner 17 millions de Sénégalais, je ne suis pas d'accord. Mhm. Parce que si fait qu'elle fait une exonération de taxes, fait qu'elle fait une taxe, vous faites qu'elle fait une condition, tu ne permets pas aux Sénégalais de s'épanouir. Vous faites qu'à côté, tu tues encore 1000 autres business parce que tu as embauché 1000 Sénégalais. Mhm. Pour moi, il n'y a aucune pertinence là-dedans. Mhm. Alors qu'on aurait pu faire un truc sénégalo-sénégalais. Et c'est ça le truc. Et puis c'est possible parce que maintenant, par exemple, euh, Dambaka gisoon naa ñu commencé won sen supermarché low price mais xana jënd marché ak ñeneen ñi jënd ay produits pour jaayaat ko Sénégalais c'est c'est pas quelque chose d'extraordinaire. ils ont commencé ñeneen ak ñeneen ils ont commencé il y a d'autres initiatives qui ont commencé mais je pense que il faut que encore ñu formaté waat l'esprit du Sénégalais. Mm-hmm. Pape le changement il est psychologique. absolument on a tay jii suma ma yéré bi ni def ci étiquette USA. Mm. non Bini. ni jël sa bos def ci def ci Sénégal bii la ñu jënd c' est toujours un complexe que nous avons. Ouais. c' est toujours un complexe boo xamante ne nii tant que ñun xeexuñu ko jàppuñu ne ñun lu jógewul ci biti amul gënul moo gën suñu li ñuy def ci li lañuy continuer di nekk. Hmm. maintenant pour man le gars bu perte boutique am perte table am parce que chinois yi ñu ngi fiy jaay pacotille comme pas possible. China Mall mais China Mall xam xam musuma fa dem xamaguma ko mais li ma xam ba xam ko mooy ne au moins Sénégal am nañ Chinatown. waaw mooy ñaari tali. Mm-hmm. mooy fële euh, centenaire centenaire am na Chinatown. Mm-hmm. après yenn condition lañ fi liggéey musuma gis chinois bu nekk ci benn école fii au Sénégal. Mm-hmm. seen doom yi il y a des enfants. musuma gis xale bu jàng. musuma gis ñu dugg ci restaurant. musuma leen gis ils ont leur propre restaurant. musuma leen gis ñu dugg hôpital. donc ça veut dire qu'est-ce qu'ils apportent à la vie sénégalaise même dans l'économie sénégalaise. mais dans l'économie sénégalaise. parce que les Sénégalais, ils koy par d'autres moyens. mais ils ont plein de moyens. du du du ils ont plein de moyens. l'État mmh. perd énormément. d'argent avec les Chinois. Mmh. parce que c'est les gens qui investissent peu et qui gagnent beaucoup. Mmh. et qui font sortir. leur leur argent même les chantiers au Sénégal quand ils amènent des gens. ils amènent des gens pour le ce transfert de compétences. de y a une technologie ils ne le font pas Moi, je dis que cuune mënut a weesu tu mënut a weesu nga def ay projet de grande envergure te ba si su ci une wiis manqué da nga koy outil extérieur ça veut dire transfert de technologie non un transfert de technologie et c'est dommage mënoo am benn saxaar buy daw te saxaar bi su paanee tu tubaab ñëw réparer ko mhm. mënoo am saxaar buy daw te bu benn boulon manqué da nga commander. commandé mhm. il faut c'est une chaîne c'est une chaîne tu as le transport en commun qui peut circuler, tu as les gens qui travaillent, tu as le truc, mais tu as à côté aussi les gens qui peuvent faire la maintenance. Mhm. Mais ça, c'est. Non, dans un pays sérieux, ça, vous n'avez qu'un marché, vous n'avez à coût de milliards. da koy accompagner tu par le transfert de technologie pour que souvent boo bëggee defaat la même chose. Algérie l'avait fait avec Renault. mais et Peugeot Maroc l'ont fait mais <laughs> dañu fait ça. mais fulla bi tamit moo jox la beneen tamit bëgg tey dañuy waxtaan ah. Hmm. xoolal Tchad. Euh, hmm. Mauritanie gii boo fa demee bëgg fa ubbi ci société dañ lay imposer. Hmm. nga def euh, benn joint venture. avec benn Mauritanien. mais la moo développé Dubaï. c'est ça c'est exactement le même principe. en France nga ubbi benn société c'est impossible. c'est impossible et regarde dans le cinéma sénégalais y a de structures françaises yu ubbi seen kii cinéma au Sénégal. Mm-hmm. parce que Sénégal ndànd fay-fay la. lu waay neex def lu neex mu def. ce pays c'est grave hein Pape on ne mesure pas le danger bi am ci réew mi dire qu'on est attaqué de tout bord. mais est ce que loolu aussi de complexe sur l'autorité non parce que en fait c'est ce qui est arrivé à Mandela à un moment donné. Mhm. quand il est arrivé au pouvoir mu ne et qu'il a laissé les multinationales ñu ñëwaat en Afrique du Sud. Mhm. il a été beaucoup critiqué par Mugabe. par par par tu vois ay Steve Beko et autres. ci bi. Parce que pour lui, c'était une manière de s'ouvrir. Quelle mhm. manière ouvrir mhm. Mais je n'ouvre pas au détriment de Nibok Smurew. Mhm. T'as dit, man, vous dak, damay souralu ak gi ba paré. Chacun gère sa chapelle. Mais vous faites qu'entendre les intérêts d'autrui prime ci say intérêt wa rew, c'est là où il y a un problème. Ce Lima jaxal amna kenn ko ma fi dama Macky Sall buy tukki avion bi wa APR ci nek. Roi du Maroc Bouy ñew fi ay homme d'affaires marocain lay duggal ci eh, ki. Mais exactement ñun gis nañ fi ay théâtre kat ay fecckat ay ay ay yëfu caaxaan. Uh-huh. ñooy nekk ci avion yi dem parce que ils ont besoin de ñu di ci yeneen mais au lieu de jël ay étudiants yu regarde par exemple jamonoy Covid. il y a eu des boys ici à Thiès école mm-hmm. polytechnique. qui ont créé sanitizer. Il y avait des jeunes qui avaient créé même machine buy def machine mm-hmm. respiratoire. Mm-hmm. ces jeunes là mais tu les amènes dans des laboratoires comme Yo y voilà, des équipe équipé laboratoire on parle de pétrole on parle de gaz les universités polytechniques les universités de technologie, technologie universités yi aujourd'hui on devait avoir déjà opérationnel deux universités ça nous permettrait nous, au Sénégal ñu anticiper sur le gaz et le pétrole mais qu'est-ce qui va se passer les xaar ne école on verra créer école créer école école mhm. il faut arrêter où sont les murs où sont les étudiants Ils fay dem

li ban la am pour ñu jàng ko si suñu dund. je n'arrive pas à trouver une réponse quoi. te c'était une histoire. Non, bañu sax sax que le qu'on s'ouvre. qu'on ait des connaissances. Mm-hmm. c'est hyper bien moi je dis pour faire une réforme scolaire. Mm-hmm. il faut que dès le primaire soit qu'on ba am entrée en sixième. de mm-hmm. spécialisé c'est-à-dire que tu choisisses par force. est-ce le, que professionnel. par force le français. par force l'anglais. par force nga choisir benen matière peut-être boy soxla dans la vie. Mm. peut-être histoire. mais que nga spécialisé tout de suite ci domaine bi nga bëgg mais buñ la bayé ba nga dem ba université pour mën choisir une branche. tu perds énormément de temps. et que les enfants aujourd'hui on les bourre la tête jang 9 mois enchaîné ko mu dañu le xol système bi deux mois. def une pause 2 mois def une pause 3 mois après mu jeex nga jang concentré wu ci li nga wara jang sur l'essentiel. pour insérer l'enseignement religieux xam nga que les yu bëri naan damay d'abord mais bu ñu jëloon sëriñu système éducatif bi yabu selim loolu lañ doon def fay vous selim c'est ça mais c'est ça fay salaire comme de vrais professeurs ñu ñëw si tu es chrétien nga dem jàngi bible mm. si tu es musulman nga dem jàngi Il y aurait plus d'excuses parce que l'école doit être obligatoire dans un pays comme le nôtre mm-hmm. un pays qui veut se qui veut se développer l'école doit être obligatoire parce que faut ngay forger mm. le futur foofu la préparer le futur mais on bourre les gamins les examens sont am il y a un manque de sérieux les examens ne sont pas sérieux gars neuf mois la wax mais quatre mois parce qu'ils sont tout le temps en grève si les élèves ne sont pas en grève les profs sont en grève s'il y a truc il y a les abris provisoires il y a nawet il y a tellement de trucs qu'il faut réformer dans ce pays dañuy daw rek man damay toog ba si yàgg yow ku la waxoon ne la deux mille vingt trois mhm. jëm deux mille vingt quatre mhm. di nga nekkaat ci xeex bi nga place de l'Obélisque mhm. pour un troisième mandat di ko gëm non du ma ko xalaat c'est-à-dire mënu ma koon xalaat mënu ma xalaatoon naa nag lu ne parce que Macky dara bettuma ci moom dara j'ai une vidéo bu ñu amoon jot dinaa la ko tegal bi mu ñëwee du ñu seet lu ci laa génn ne presse bi kii ma toogal nii gëw ma dara nga ne oui j'ai la vidéo ouais je vais te l'envoyer ok très bien bi may wàcc moom ma nga taxaw ci balcon bi naan ñii yaa naa maar yaa naa maar moom waaw parce que ba ngeen ñëw parcelle ñoom ñoom àndaloon toog ci ay xeer foofu def nii ñii taxaw day ci saaga ñëpp ñi ngoon ci ay xeer toog amuñoon accès ci biir moom xam na ñan la dugaloon ci biir ci laa taxaw ci suuf ne leen kii ma gis nii du changé dara parce que waxul waxul lu tegu et cette histoire de je vais casser l'opposition réduire ko à sa plus simple expression il nous l'a dit autrement wax nañu ko c'est-à-dire ce combat là dama bëgg Sénégalais yi man particulièrement kuréel gi ma bokk muy dañ ci am une responsabilité particulière waaw parce que dafa ñëw toog wax ak ñun doomaa am et je lui rappelle ses propos il n'a pas le droit de trahir sa parole Amou droit non il nous a dit le mandat c'est réglé au Sénégal Le mandat c'est réglé au Sénégal les gars je vous dis même damay wàññi sama boss def ko 5 ans. Le mandat moom kenn peut ko fi parce que le Sénégal est un pays africain c'est une honte aujourd'hui j'ai honte quand mes amis qui est un pays m'appellent pour me dire c'est un pays bi li mon fi quand quelqu'un est capable de sortir des mots pareils aujourd'hui, aujourd'hui maintenir ben flou ni oui ni non wax a wax wax la. Mhm. Tek wax la. Tek, ciel mhm, wax la cenn cadre la. Mhm. donc responsabilité bobu ñu ci am moy ka dafa togo ñun wax ni ko ñu gëm ko parce que dañu japp ne yow doomu adam nan Si mënee ñew ci jamono boobu noonu un président bu ne damay wañi sama mandat tu te dis mais kon ce gars il est animé de bonne foi. mais malheureusement on a vu le contraire mais ça ne passera pas. fourberie loolu tu tubaab fourberie. ça ne passera pas il le sait xam na ko ça ne passera pas xanaa mu jaar ci kaw Sénégalais yëpp. mais et puis du loolu man li ma gën a jaaxal. Hmm. moo di man de sincèrement parle li may jàpp ci ayu Macky Sall. 2012 hmm. ba 2024 mooy li mu tëj dafa bari. li mu rey 19 morts dafa hmm. bari. ëpp na ko. ça veut dire que moom nee naa ko boo fi tabaxoon ay tëlu jamaal yooyu man loolu rek laa jàpp ci moom. c'est-à-dire que xam nga man ci comprends pas. non Pape il ne faut pas que les Sénégalais se trompent. Il y a ce qu'on appelle, dans, l'ordre d'un régime, hmm. les certains se focalisent sur ce qu'on appelle le bilan matériel. Hmm. Et le bilan matériel, en général, c'est de la poudre aux yeux. Hmm. Mais le bilan immatériel, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne parle pas, il faut faire le maquillage. justice. Et le bilan immatériel, c'est sous-bassement d'une république. Absolument. Quand on parle de la quintessence même d'un pays, ce sont ses institutions. Ce sont ses libertés. C'est comment on s'épanouit dans son propre pays. Mais ce n'est pas parce que tu as créé deux, trois infrastructures qui nous ont coûté la peau des fesses. nga dem lépp ko ci suñ kaw ndodd lu war jar cent francs, nga jarloo ko dix mille. partagé du gâteau bi tegal ñu ay factures yoo xam ne ëllëg ay 100 ans la ñuy di je plains le prochain président sénégalais. il a énormément de boulot à faire donc nga def à saxaar oui ça bi baax na mais il bi ñeenti gaar lay desservir. ñeenti gaar lay desservir ça fait même pas 100 km. ak il faut fa mu jaar jaarul ci biir waroon na mën a dugg biir Malika génn yëmbal wala fël fël wëltiku servir d'autres sénégalais defu ko Ben, ben itinéraire bu ndaw la yor. et c'est pas pour tous les sénégalais. C'est le gars yi di quand on dit que train bi réglé le problème de transport ci banlieue c'est archi faux parce que à l'air, ce train n'a pas prévu des wagons marchandises man sama yaay bari ñu la nekk jaaykatu jën la paan lay yor di xey suba su duggee ci train bi dañ koy génne parce que pan bi du dugg ci biir train parce que le train est luxueux donc ce train du pour baadoolo yi loolu la ñu di faté. ce mhm. train c'est pour les gens les nantis de la banlieue parce que gars yi dañuy gaare auto, oto jël train Comme c'est pour les nantis il a réglé le problème des nantis mais il n'a pas réglé le problème des sénégalais ci sénégalais bi ci souf mhm. parce que sénégalais bi ci souf mécanicien la il fait le bari ñi le nekk day xëy pour dem défoncer jënd une pièce mais vous solee tëneen du dugg ci terrain bi parce que sénégalais bi bi si suuf jaaykatu jën la si yenoo panam, du dugg ci terrain bi parce que sénégalais bi bu yenoo ndàmbu mangom, du dugg ci terrain bi donc il faudrait prévoir chaque deux heures au moins un train marchandise un train pour ça permettrait à ces gens là qui ont ces petits métiers ils war des dem ville ñëwaat ñu mën du dugg ci train mais permettre ils donc ces gens là sont toujours tibir embouteillage bi tu n'as rien réglé pour eux. Mais par contre, tu as d'être une entreprise française. SNCF. def un clin d'œil au régime français satisfaire nga ay besoins banque mondiale et FMI qui est en train d'enrichir les étrangers. au détriment de ton peuple nous, sommes Sénégal am train. regarde la dame qui était là-bas ñu parce que tout simplement dafa nekk kenn kuy revendiquer. état de et le droit de grève. et ministère de la femme. le ministère de la femme c'est un ministère qui ne sert absolument à rien du tout. c'est quoi le ministère de la femme la femme n'est pas un individu la femme elle peut pas être économiste. Mhm. la femme elle n'est pas dans la société la femme c'est le ministère de l'intérieur le ministère de la femme ça a été créé pour faire un clin d'œil aux femmes les femmes ne sont pas stupides

non je te dis quand une personne vient d'une certaine situation sociétale. Mm-hmm. en général mm-hmm. tu te venges sur tout et tout le monde. c'est donc ça parce que dans nga autorité dans une autorité. merci tu montres une autorité mais pour le cas particulièrement de Maki, c'est parce que le gars il a peur. Il a ragal weesuwul bi ñu ko bëggee jàpp mu dawoon wër kër sëriñ ñi ne Ablaye Wade daf may tëj waaw ragal weesuwul ko c'est le seul opposant africain arrivé au pouvoir sans xeex quoi que ce soit amul moom laa doon wax su sama soxna ma ne ko euh, man ba may tëj ko so daw ma fenn làqatu moom dem naa assumé ko ah, même moom ba ñu koy bëgg a tëj dafa daw làqatu ji mais au delà de daw làqatu ji dafa wër di ñaan pour ñu baal ko waaw c'est-à-dire moom ci ci wéyam ci wéyam toujours

donc les gens à tout bout de champ mais permets-moi papa, de ma taxaw parce que. quand même li ma Ce et puis je doguma lundi jeudi. lundi mardi mercredi jeudi quatre jours de grève de la faim de plus de 265 ou 300 de euh, détenus. on est au courant mais lolo waaw xam nga nga lolo c'est de la méchanceté à un moment donné mais li tax ma bëgg a taxaw moi n'est pas pour critiquer ce n'est pas pour xas dama bëgg mu l'air ci bopp sénégalais dama bëgg faire un rafraîchissement de mémoire qui a été le premier ministre de la culture sous l'ère Macky Sall c'est Youssou Ndour grand You il y a tellement d'artistes qui sont en prison aujourd'hui parce que c'est des artistes comme c'est say petits frères c'est un appel bon, du du c'est un appel. Adouti. parce que du j'ai le cœur meurtri de voir ça frères comme ay nit comme un Karim. Nous sommes en prison nous sommes des artistes Nous sommes comme mel Youssou mu tiré ci le premier ministre de la culture sous l'ère Macky Sall nous ci ce que c'est un truc qui me tient à cœur. te on a intervenir aussi. moo tax loolay dëgg moo ma koy def appel. Benen bi moy ñi ñu tecc ay résistants lañ maki ne peut pas les casser. oh bien non c'est peine perdue. par exemple quand nit dof gars yi demandel ko liberté provisoire ñu refuser ko mom mu leen di ree fa mu parce que gars bañu ci dara xam nga aujourd'hui Macky dafa dem ba démystifier wala faire démystifier yenn aspect tay ji imagine imaginez jeune, BIP dik mais soo ko déggaan. da nga naan la fin du monde. maa ngi koy wax mais ASP c'est-à-dire que les gars yi doon sol kagul yi. soratul si ni kagul yi. il faut intimider tuñ kenn man bu ma gisaan oto wala dama non mais attends na. mais léegi du dara. des dafa désacraliser lépp loo xam dafa sacré woon ba palais de la République. Mm-hmm. quand le palais de la République on y fait des nagas, des bongo. Quand le palais de la République, on y reçoit un voleur de documents administratifs, nous toque photo avec le président. Quand au palais, on reçoit des insulteurs. Quand au palais, l'insulteur le mieux payé au Sénégal, nous avons nous n'est que conseiller président, nous donne que chaque programme. sur le Et on a désacralisé le palais. Palais à Moutoum. C'est marché coloban. Ah, tu dis oh, c'est profond. Hein? C'est marché coloban. C'est désacralisé. Amoutou, palais, Amoutou mythe. Mais assemblée, Amoutou mythe. Depuis 4 ou 5 mois, il n'y a même pas une plénière. Les députés sans son plaints. Non, et l'Assemblée, le président de l'Assemblée, l'armée m'a imposé. Mais, vous sommes pas c'est l'armée l'armée qui a euh, euh, qui qui. non mais c'est l'effondrement de la république. C'est grave alliance comme nous alliance pour la république. C'est l'alliance pour la république. Ah. la république s'est effondrée. parce qu'une république d'un koy xool. dafa non dès koy xool ci ay affaires. Mm-hmm. ok les institutions sont fortes. tu vois l'économie est dynamique les jeunes les gens am nañ ñu ngi vaquer à leurs occupations mais yow réew moo xam ne doo sëq doo wax mais Macky mënuñoo teree wax c'est-à-dire il n'a qu'à nous mettre tous en prison. Mm-hmm. mais mënuñu teree wax parce que loolu acquis démocratique la bu ñu xeex ba am. loolu sax prison xam nga loo fay jàngee. voilà ñu xamul man lu bëri umpale woon naa ko. mais ba nga demee ba dend ak détenu yi. mais ñu lay nettali. oui yenn décision de justice yi nu ngi ko lijjanteeg yooyu. oui mais maa ngi ci waaj a génne livre. mais il le faut mais Pape c'est que pire pire aujourd'hui moi je demande à ne remplir les prisons parce que tu veux forcer ben affaire ou tu veux faire un truc ou tu veux montrer une autorité au contraire les boys les ngeen dégg ñu mais de booy dama man de moi là pour moi bërëng mooy lan quoi mooy dem quoi dem quoi compte parce que les les c'est CV oui c'est aujourd'hui dem Kasso, c'est c'est une star dans ce compte koñ Macky a fait des stars de la prison bu njëkk un kaso gars la woon pour nous. Mhm. bëri aujourd'hui star ngay doon lu <laughs> mu xamul la si si lui qui l'a fait booy yi ma gis yëpp ils te disent man de pare naa pour dem bërëm parce que affaire bi jaral na ma ko xeex bi jaral na ma ko tu te rends compte alors que lui les libertés yi ñu acquérir woon ba am ko ba téye ko. il est le premier à en bénéficier. waaw amul lu waxul Ablaye Wade amul lu mu xasewul le régime d'Abdoulaye ak li appel à l'insurrection bi mu wax na ko armée yu gën na ko fi ñoom yi mu wax sax mais yi mu wax su ma la ko tegaloo dem na ba teg mu ne am naa ay UVO ah. mooy ay unité de vigilance opérationnelle yo xamante ne c'est pour répondre au canon bleu j'ai créé mes marrons du feu mais dañ ku fàttali les marrons du feu kenn fàttewu ko hmm? mais xam nga nag ku nekk opposition am ay nervi bu ñëwee pouvoir waxuma la euh, milice lay am ku ne opposition am nervi mhm. soo pour pouvoir tu crées ta milice. mais est-ce que l'on sax gisuñu ko ci manifestation Mais mais y a y a une milice qui est là. fii man man. mais xew nga xew nga frère. oui oui yow. mais mars 2021 ah, oui. lan la fan la yóbbu yóbbu ma petit palais la xaw ma palais xaw ma palais hein, bi me ma jàppee foofu lañ ma yóbbu en tout cas fu dend ak palais la def nii bon bref Je nga man li may bëgg di wax tout le temps.

et le mutisme d'une certaine presse. quand la la posté. reportage Al Jazeera. oui en anglais je l'ai vu. oui reportage. oui vu et d'ailleurs le reportage il dit clairement ce que la presse sénégalaise n'a pas envie de raconter. oui c'est ça Al Jazeera est venu. donc pour nous raconter ce qui se passe dans notre pays. pendant que notre presse est là. Parce imagine s'il n'y avait pas. les certains, réseaux sociaux sites les réseaux sociaux wala minimum ñi ça veut dire que il y a ce qu'on appelle les journalistes. Mhm. Et j'en profite pour Big parce que c'est le quatrième pouvoir. Mhm. Quoi qu'il puisse arriver, mutine, mhm. mais amener une résister. Absolument, amener résister. Et il y aura toujours une résister. Mais le problème de la presse sénégalaise, c'est les patrons de presse. D'accord. Parce que c'est des, des opérateurs économiques. La presse ne devrait pas être un secteur ouvert à tout le monde. Un homme non hommes d'affaires nous ñëw créer un journal de le créer groupe de pression voilà des groupes de pression un homme d'affaires il gère ses intérêts selon le moment mais les xew Ngor noo ko mais c'est grave c'est inhumain mais mais Ngor ils vont résister ils vont continuer à résister nos frères les bouts, ils sont déterminés à garder leur lopin de terre Qu'est-ce qu'ils ko Nous, ils sont en train de se battre et ils se battent mais mais je ne peux pas comprendre je me gisee image démb fii dalal d'ailleurs dans la le responsable de la commission domaniale mais li mu expliqué dafa grave il a dit que ay balles réelles lañ tirer oui on a vu les images dugg ci ay kër du toj. on a vu les images ça sànni a effet toj lamp yi. sànni ay gazé machin du di toj ay kii. imam beeg notable bi ñu gazé ko mais est ce que vous pouvez imaginer dinañ toll fii ci au Sénégal. oui mais c'est que nos forces de défense et de sécurité sont utilisées les moyens même de l'État état. tu ko non moyen wu nguur li nga xamantene nit boko falé falee. da nga ko koy jox muy ay kay waaw mu war ko jël pour njëriñu askan bi. mu jël ko tek ci ndod askan bi. lool moy problème bi parce que bu fekkente ne Sénégal dem nañ ba lu toll ngor nga encercler ko ak sa police ak sa gendarmerie ñu japp tiré ci population yi ay jigen ay xalé ay ndaw. ay mag am na ku dee. am ku ba gis policier boobu noonu nga gis ni ko xalé yi doon dimbalé noonu. nga xamné Sénégal ben Sénégal policier yooyu ñu fofu leer na ma ci am frère wala cousin sœur parce que Sénégal nag dafa xam yaatu yaatu yaatu yaatu soo déggee benn moor da ngay dégg diw ah kon kii diw la kii mbokk ku ne la on est tous de la même famille ay et c'est ça qui est grave dans ce dans truc de mais moi, li ma ci gën a on a un état te du parce que quand même li Macron en mm-hmm. France Comment Macron va se sortir de cette crise euh, Non, c'est fini. Son, deux, deuxième mandat, il y a Comment Mais Macky, Macky, son premier mandat, il y a bataille. C'est-à-dire Macky, en 12 ans, le règne de la terreur moi, au Sénégal. Un état policier. On a recruté plus de policiers que de fonctionnaires. C'est ce que je ma Macky Sall moom ak lu mu mënta defar li may jàpp ci moom mooy daal soxor bi am na bi bëri euh, répression oppression. état policier manipulation. manipulation sur non je reconnaître <laughs> c'est un aveu c'est un aveu de taille. quand quelqu'un dit que ci es un tapalé, mais le grave depuis que Macky est là on est sous un régime un état policier.

VDN 3 bi dañ ko tabax amul ay làmp ci yoon bi amul aire amul station service amul dara parce que ñam ko bëgg a jox les sénégalais ñu ngi résister. te xam lu ma jaaxal tamit ci loolu ngor xoolal. Hmm. trois semaines. Hmm. ñuy xeex dëkk bi nekk ci ay fitna ba bakkan rot si. Hmm. ngay doog a woote waxtaan mais loolu buñ ko buñ ko tàmbalee woon dinañ yegg fii. ban waxtaan ma ci amul waxtaan bu mu woote bu sincère. dialogue bi amul benn non bi moo gën a ñàkk sincère ci li ma. lu tax gis sama àdduna. lu tax parce que la sincérité. ñëw mi ngi commencé ci dama bëgg waxtaan ak yéen damay lâcher du lest je libère vous les prisonniers politiques. d'accord naa loolu mooy lu njëkk. c'est un acte te pourtant deux mille vingt et un. c'est une position ak déedéet d'opinion mën na ko naxee boppam xamul nit nag moom lu nga bëgg naxee sa bopp yow loolu yow la. foyee sa xel non je veux dire xam nga nguuru Sénégal li dox foyee sa xel. nguuru Sénégal xam nu mel. Euh. métaphore bi c'est très simple. Euh. dafa mel ne waa ji nekk ci koñ bi te tële. waaw maanaam ngeen baal ma mu yoom. waaw takk tey takk soxna rek. waaw kooku day nax boppam. <laughs> yow da nga yoom xam nga ne da nga yoom nga takk aaw. waaw mënuloo ko dara. waaw nga ne da ngay takk ñaareel. Uh-huh. ñu ne jën waaye nga da ngaa bëgg ñetteel. Uh-huh. te yow xam nga da ngay foyee sa xel. yoo xam nga ne mënuloo leen dara da ngaa tële noonu la Sénégal mel Sénégal nguur gi dafaa tële mhm. ba pare di ut ay troisième mandat xam nga yow boo tëlee munoo jural munoo indi dara donc loolu moom mooy image bi ma si gis mais tout ça tout ça tappale la donc dialogue bi tappale la amul manipulation moo am amul y a pas de dialogue c'est pas sincère l'appel n'est pas sincère mënoo ne da ngay dialoguer au même moment yaa ngi kase ay opposants au même moment yaa ngi tëj ay sénégalais au même moment yaa ngi tëj ay nit lambda c'est c'est impossible ban climat boobu noonu ci woote dialogue wala boobu mom dialogue am daf ok je réprime je je donne le bâton après ma joxé la carotte pratique yoy mo fi jë et puis Macky bu sincère ci dialogue bi li mu njëkk wax xam mooy lan gars yi kaay man élection yi bokuma ma. Hmm. nañ leen waxtaan ñu xol comment organiser les élections mu nek ci jamm mu dem ci jamm mais su boobaa ku bokul ci dialogue bi ñu xamné ko sof nga. ñun askan bi ñoy dal sa kaw. hmm bu ne won venez ñu leen waxtaan parce que élection yi di ñëw man bokk ma ko bëgg organiser ci élection yu jaar yoon transparent ñu ñëpp voter ibbi fichier bi donné maximum de temps mais xoolal tëj nañ fichier un mois tëj nañ fichier C'est c' c'est manqué de sérieux la Scandinavie benn ville lañ leen bàyyil muy Amsterdam c'est-à-dire Finlande Danemark euh, Norvège tous ces pays là ils étaient obligés de voyager pour à Amsterdam pour mën inscrire ñëw ba ci buntu bi non le nombre de personnes qui ñuy par jour maintenant, nga billet en Espagne on promet aux gens de leur ouvrir un consulat à Barcelone parce que quoi qu'on puisse dire en Espagne par exemple sur rombé un peu Andalousie Rome, Madrid hmm. les Sénégalais sont plus à Girona Barcelona mais malheureusement hmm. ba consulat même les Sénégalais ils demoon double double, dem Allemagne on les rapatrie parce que qui envoie une délégation on identifier nos frères

non parce que amnistie bi jubluwu ci Macky jubluwu ci Khalifa jubluwu ci Karim Wade. boppam la Mansour Faye la ci jublu. Mansour Faye ak Aliou Sall. ak Aliou Sall ak tous ces voleurs de la République. ñi nga xamante ni nii dossier yaa ngi leen di épinglé. Mm-hmm. ñooñu la ci jublu bi amnistie mooy lan la mooy amnistie naka la homme politique di xaar amnistie non c'est impossible. Mm, ci xaalisu réew on se bat on se bat nous les deux articles qui. ci systématiquement oui qui systématiquement interdisent aux gens d'aller aux élections. Moi, je ci moo ko ci dugaloon 2018. loolu kese la cest une une volonté manifeste. te te te ci loolu Guy Marius Sagna <laughs> déposé na sax euh, euh, demande voilà mais c'est ça. proposition ah, de ah, loi à l'Assemblée déposé na ko pour articuler, nous changer. Ah, changé. ñu waxoon na oui pourquoi le dialogue pourrait même se tenir à l'Assemblée parce que cohabitation moi, am. waaw un dialogue dialoguer c'est aussi simple que ça que muy rencontrer Ben leader s'il était sincère assemblée les yeux parce que même le premier ministre Yagou, il est resté combien d'années sans premier ministre donc c'est lui qui devait aller à l'assemblée Wahak ak mais Macky je ko les gérer quoi j'ai comme l'impression non euh, il joue au avec avec sénégalais Il n'y a rien respect non il y a rien considération y a rien y a rien c'est dommage Il n'y a rien c'est un mépris total il ne s'adresse jamais à la presse sénégalaise

parce que les questions brûlantes de leur beaucoup ko Il faut mépriser la presse sénégalaise et comment mépriser sa presse de mooy da mépriser sa waa dëkk. Mhm. parce que fa ngay waxee. rew. Mhm. réew. bitim et puis des choses sérieuses ah. oui foofu la parce que ñu respecté na leen ñooñu bu démé si ñom. suñ koy wo interview diko ko laaj du wax ni wii ni non dina dans dara seen loxo. Mhm. parce que ñooñu ñoy bailleurs yi foofu la yi <laughs> c'est ça le truc Fofu la mbir mi koppar di joggé koppar yi ñuy lubal ci réew mi foofu lay jógee donc respecté wul sénégalais yi et dialogue moom di ko waxtaanee pour man les conditions du dialogue teguwul parce que pour dialogue am prisonniers yi da leen di libérer. muy benn ñaareel ba nañ ko defee assemblée soxla lu ngay toog ak kenn looy toog mag yi war na am jot bu mu toogee ak fi réew mi toog ban jot la am pour toog ak ay nit. di waxtaan ay jotu politique de. waaw mais jot politique la Sénégal la mais la preuve. la preuve la preuve li yëpp il a fallu que toutes les forces vives se retrouvent autour du F24. Très bien. Pour que nous apportions une réponse politique. Parce que l'on Quand les Sénégalais souffrent, ils ne leur apportent pas de solutions. je réponse politique. Ah. Et réponse politique, plateforme F24, B, nous te dis, expliquez le Sénégalais. c'est C'est un cadeau du ciel. Le cadeau là Cadeau du ciel, moi, man bokkoon naa m 23 euh, M23 kon je suis très bien placé pour en parler. absolument bokk it luñu bok ñu bokk. bokk ñoolank bokk ci lepp luy plateforme fi mais bi dafa am particularité. lan mooy particularité avant sa naissance. le nit ñi adhéré. le jour du lancement mu amaat yeneen adhésion lu musu am M23 dañoo dawal nit ñi dañu dab ci yoon bi. waaw mais bii avant ñu koo lancé toute la société civile s'était déjà retrouvée autour de Diamagun troisième mandat. Toute la société civile s'était retrouvée autour du concept Bouko Diem. Les politiques, d'ailleurs, nous sommes nous il faut que nous joindre les deux forces. Qui vous fait, qui on se disperse. Mm Nous d'ailleurs, nous d'ailleurs, tant que tech. Nous sommes bien, hommes politiques, mais vraiment, je veux faire un grand big up aux hommes politiques cette fois-ci. Parce que beaucoup de gens tàccu nañu waxante deug bëriwul lu ñu tacc homme politique mais tay dama leen di pourquoi ma leen di c'était pas évident de retrouver nañ ko wax te dee Thierno Alassane Sall Pape Djibril Fall Sonko ci ben plateforme c'était pas évident hmm. c'était pas évident mais ñun ñëpp ils ont montré leur amour du pays ak sen grandeur aussi ak sen grandeur ak sen maturité hmm. bayyi sen ay considération peut-être personnelle wala crypto personnel wala ay parti wala lu mënti doon pour nekk ci mbirum réew mi. tax F24 en particularité lolu tax F24 gëna a fort yeneen mouvement yi fi il am yëpp parce que on a jamais pu fédérer tout le monde mais cette fois-ci on a pu le faire parce que nous ñoo ñu ko permettre et chacun nak ku ci nekk bëñ ci sa wall bi ci war et lolu c'est à magnifier et lolu dañ ko wax sénégalais ñu xam ko. Mm-hmm. dañ ko wax sénégalais sincèrement dañ ko war wax sénégalais yi ñu nekk ci biir affaire bi ñu xamal sénégalais yi nekk ci biir yi cette fois-ci tous les acteurs politiques à l'unisson se sont retrouvés dans un cadre avec la société civile pour mën a xeex ñeenti poñ poñ bi troisième mandat du fi am Pogne ba ca la libération des détenus politiques Pogne ba mon article L29 L30 ñu dinduko, ko ci mbir mi mu jeex poñ ba Macky Sall organiser des élections libres et transparentes yu ñu dul bokk lii mooy poñ yi waa lii beaucoup bëgg Sénégal dañ ci ku bëgg Sénégal bokk ci. Pape vendredi ni nekk suba. waaw na dëkk bi verte zone rouge. parce que. xam nga fa la ñuy tàmbale balaa rassemblement bi. Mhm. dañuy wax ne képp kuy taximan. Mhm. képp ku yor car rapide. Mhm. képp ku yor oto. wutal sa benn drapeau la. verte zone rouge takk ko sa oto. comme bu Sénégal di football ni ko gars yi Sénégal di football. parce que Sénégal a organisé. Sénégal a organisé en fait. parce que lii équipe nationale la tamit. waaw dafa ñun de. réew mi mooy dem di jongante ji ak kay noot réew mi. ba tey xeex la. coupe du monde la bii coupe monde la bii moo raw coupe d'Afrique. parce que askan bi yëpp mooy dem di jongante ji ak kenn koo xam ne moo bëgg a noot askan bi ñu war a jug nag wan ci taxawaay boo xam ne musuñ koo wane. et je te dis Pape bi dañ koo war a duy ba mu toll ci million nit mun na ne. absolument mun na ne. mais foofu nag lay mere man sénégalais. Mhm. ñoom dañuy délégué xeex rek. non caa non Non, pas Non tu, tu, seras surpris, Pape. Tu seras surpris. Les Sénégalais sont très déterminés. Tu seras très surpris. Place B, dès 13h d'une fesse, je Dès 13h d'une fesse. Est-ce qu'on l'autorisation Non. L'autorisation Ah. La mon autorisation Le rassemblement, de demande autorisation Non, demande autorisation. Il y a une autorité, il y a une autorisation. Le Sénégal a fait régime autorisation yëgal nañ ki ñu. ñom ah ñom buñ ko interdire. Hein? non non xalaatuñ ko ñun nit ñi loolu newul sax suñu souci ñun on est dans les dispositions de comment on organise notre événement dans les règles de l'art wone fa fulla ak fayda et dans la discipline heure bi ñuy précommence ñu commencé ko heure bi ñuy pare ñu pare ko ku ne ñi bi dem doxi sa soxla nekkuma ci détail yooyu noonu ay affaire ay autorisation yi de ñun toog romb nañ foofu de non romb nañ foofu on n'est pas dans ça ñun ñun ci li ñu nekk mooy comment faire pour que mobilisation bi réussir sénégalais yi ñëw nous assurer nous, sécurité, nous, assurons assurer la sécurité de la sécurité de ces Sénégalais-là, nous, nous encadrer comme nous disons, nous jàmm mun tax jóg mais donnez na voilà na neex balaa sax ngeen di dem sur kii bi oto vert jaune rouge. oui loolu loolu mooy début oui. ku nekk booy génn en tout cas li ñu laaj. suba et je pense que tous les leaders ont déjà fait cet appel en disant que bu fa kenn indi effigie parti. absolument leaders yëpp ko d'accord. accord. Hum. bu fa kenn indi effigie parti bu fa kenn yóoxoo ben leader. Hum. Le yëpp leader yëpp wax nañ ko bu est kenn leader nañ wane Sénégal Ben say contre le tyran loolu mooy dëgg bi. nañ ko wane donc verte zone rouge détermination fermeté discipline respect mais détermination ak engagement Nous ñëw wax li ñuy wax déglu ñi ñu le monde entier li ma gis li ma journalistes étrangers lim des gens qui viennent pour voir ce qui se passe au Sénégal c'est le moment ñun à Sénégal parce que ce que que les gens ne savent pas Maki, à un moment donné avait une très bonne presse étrangère. Absolument. À l'étranger. Moi-même, il y a beaucoup de confrères qui m'appellent. Euh, Malène accorde les interviews. Ils Oui, à l'étranger. Des ils prennent même mes émissions. Oui. Une def. Oui. À l'étranger, il s'était fait une très bonne presse. Une très bonne carte de visite. Mais là, il faut qu'on vous parce que ailleurs sénégalais Il faut que un président annulé à l'étranger xamal ne il fait. le job pour les. le job pour la France pour ñooñu noonu loolu rek la tirailleur nga. tu es un commis tu es tu es un un un un chef de canton. tous les présidents qui ont su dire non ont une mauvaise presse à l'étranger. absolument mais président boo gis presse tubaab bi di ko tagg président tubaab bi di ko tagg xamal ne liggéeyul waa réewam ñooñu lay liguer. loolu la gëm. Mm-hmm. loolu la gëm et mën nañ ko démontrer ci ay preuves yu dul jeex maintenant cette presse là regard boobu mu amoon ci kii. ci ci ci ci. Sénégal on a. mais loolu moo ko teg boppam ah. répression bi muy def nii. ak tëj bi. moo tax on a une opportunité suba de montrer à la face du monde que le Sénégal n'est pas d'accord avec Macky. Mhm. parce que bu ñu place bi ba mu un million. le monde pensera que Sénégal est d'accord avec Macky. Mhm. kon gars yi nañu génn. nañu génn ku mën a ñëw na nga ñëw ñëw leen ak seen i doom femme. i leen parce que jàmm la. Mhm. c'est important.

Que pour le journaliste sa caméra cet après midi y a un truc qui se prépare. et la et mobilisation Si ci un million de minutes, je am vous parce que Sénégal a plus de 4 millions de personnes. Mhm. ñeneen gens région a ne. c'est possible pour répondre provocation provocation comprendre les gens ont compris kenn dootu provoqué Quel d'autres provoqué Il obélisque RTS warut am espace ñun loolu lañ bëgg te loolu mooy wane ne parce que nag tous ces leaders politiques bu ñu dajalooyee toute cette société civile dajaloo les sénégalais rek en indépendant près de deux organisations et individus ci biir plateforme bu ñu mënul duy RTS ba obélisque waaw mais kon xamatuma ci dara. Euh, lan ngay tontu ñenn société civile yi di wax ne ñun duñ rax ak politique yi di porter ay combat genre xaw ma kan moko ko mais en tout cas man dama jàpp naa fex la loolu waaw non du aussi bu Sénégal laajee Sénégal la laaj non c'est que il faut que les gens comprennent un truc 2011 ah. hmm. kum mu neexoon nga ne ñun Macky lañ andal ñun waa Yanamar waaw mais tay ñep dañ lay Macky lañ contre hmm. ñen ñi dañuy sax momelé Sonko wala ñu momelé ñu keneen mais yalla xam na ne ñun fen ah on est là léegi nak la les hommes politiques et la société civile à un moment donné par force dañuy dajé Mm-hmm. surtout l'opposition surtout pour réew oui dañuy parce que faut pas que gars yi aussi des politique c'est des des sénégalais aussi. des citoyens comme nous. Des citoyens ah. mm-hmm. non des tamit ci garab yi ci ay des mm-hmm. di dund dund di dund yi dund waxuma des Sénégal mais opposition c'est des Sénégalais comme nous. mais en fait ñooñu ñooñu bu ñu leen di xas wala di leen wax te ñoo leen doon courtiser surtout que man man tey su ma toogee su ma toogee su ma toogee dégg ñenn ñi di wax yenn yi ay ree la may def. parce que man am na poste ministre yoo xam ne tey jii su ma ko d'accordoon am na kuy toog di tangi tangi du ko du ko nekk man maa koy doon donc loolu xam nga kon xam nga kon bu ma toogee yow nga ne da may xas te yow sa président woo ma ne ma kaay doon li kaay doon li ma ne ko bugguma. Ah. yow bu ma ko bëggoon doon doo ko doon yow tey parce que daf may def ay ree. la may def moom du journaliste ma ne waa d' accord. xam nga moom gën a def ree. Euh. mais man j'ai les yi mag yi taxaw buntu dikk. naan libéré Thiat. <laughs> loolu foog ma génnaat ko. Eh, ma ko ba. moom xam nga mag yi mu taxaw naan libéré Thiat c' pas normal nangam nangam ak nangam tey moom moo jàpp di tëj nit Karim Xrum 22 juin deux euh, vingt deux juin. man mom Fumaraat cap de ce Crazy Cool. lañ njëkk a le 22 juin Daniel Brottier. Daniel Brottier. te Karim le gën a mën peut-être tëj alors que Karim s'est battu ci sixième dem naa ko. non seulement Karim c'est battu mais Karim est malade. je sais mais ngi sixième mandat. nit dof Demain naa ko c'était jeudi passé. nit dof un jeune sénégalais bu dëkk Europe am fa lu bonne, mon bu top. On décide toog mu décidé ñibbisi ibbi entreprise am Sénégal Difficile, fi son art pour ces positions nga jàpp ko tëj fi bi te nit dof lam wax dafa wax sànni saagawul ken wa mais mom ay nit ñi ngi saga wa mais à côté say nit ñi ngi saaga mais mais ma jambal Diagne. waaw waxul ne juge bi wëyu la. Euh, ya xam kayit. ba pare ne ko xamal na la lu ay ay mbóot sa famille. ba pare xas privé hasmen le président de la cour. de euh, grande instance. wa fal xas ko da ko xas. ne ko cuune nga jox dossier bi mi ngi vaquer à ses occupations pour les mêmes choses. Non, Ahmed Suzanne Camara. Non, mais ñun sax dama de dépasser. mais dama pour ne serait-ce que ça mais regardez euh, Bassirou Diomaye. waaw mais il a pour peu il a ci donc cette justice ni muy doxee ñëpp gis nañ ko ñëpp xam nañ ko mais li ko waral mooy. dañ ci taay moom Sénégal yi moom dañ ci taay waaw mais mais que je veux vraiment mooy Macky nous libérer les otages quoi nous ñu kidnappé les otages. ñi ñu kidnappé avec mm-hmm. ñi nga xamante ne nous dañ leen de manière arbitraire ci ay ñàkk fayda parce que mënoo xoqtal sénégalais xanaa kon da ngay mujj tëj ñëpp parce que gars yi ragaluñ loolu il faut que mag ci xam ko tamit gars yi ragaluñ gars yi meluñ ne moom. parce que gars yi dañuy dem bërëng loolu lañ ko tuddee bërëng gars yi pare nañ pour bërëng de loolu la quoi c'est-à-dire que moom il faut yi pare nañ pour bërëng li mu ko jaral pour troisième mandat lu ko raw la ñu jaral pour mu bañ ko def il va devoir marcher sur nous pour mën pour mën a daf def son sa troisième candidature loolu moom. il faut non mais là il ne va pas hésiter hein. non ba tey. donc parce que xam nga xam nga xam nga caat. 19 morts am na fi. met hmm. si Kaba toog xaw ma sax da wax naa ne wax met si si mën naa Sidiki Kaba Sidiki Kaba toog. avril waaw mais Abdoulaye Wade tamit y avait 14 morts mu brise de mer Ouais, d'accord. d' accord xam nga fàttali ñu loolu. mais jógee mooy la mais je l'ai ko 19 morts mais Macky mooy kan Macky c' est la continuité de Wad.

non c'est oh, non ci non non ci mbirum. démocratie exactement ci démocratie liberté. waaw seenul kenn c'est c'est sax Abdou Diouf waaw Abdou Diouf sax ko ci mais man damay si même nan la après les indépendances na ngi ko invité 31 décembre mu ne la magie du clic fera face à la puissance du fric et du flic te yoyep nak dañ ko bindalon mu tek ko ci table bi

nga kan ya? ne ku fi kàcc waaw ñu kàcc kàcc la ah oui ku fi vaar ku fi kàcc ñu kàcc kàcc la waaw vaar waaw vaar nga génn mu leer loolu c'est clair ku fi def lu doy waar ñu vaar ku fi kàcc ñu kàcc kàcc la loolu mooy dëgg donc nag nga bëgg ko nga bañ ko mais Macky boo xoolee lim def dafa loi ci terrorisme pour kep ko xamanteni da ngay ci mbedd mi ni ñu accuser le terrorisme les les européens c'est des baromètres baromètre pour wax terroriste Nous ils ak ñun mais si jëlee Mais copier ko indi ko ko y a problème donc il y a toujours des problèmes Nous nous réprimer tout et puis li ma jaaxal des bëgg ay wax ñu rëy quoi force spéciale force occulte commando rebelle Allez, léegi ma la force spéciale Qui ki l'armée par le biais du ministère de l'environnement ana arme Quoi quoi force spéciale parce que y a des armées ay armes fi dugg ana armes 4500 fusils pour 165 xaw fusil d'assaut fusil d'assaut mais fusil à lunettes. waaw dugg ci réew mi ñu jaay ko ñu armes non répertoriées si un veut lañ ko jëndee. Mm-hmm. un bandit recherché oui recherché par Interpol. ñu a jëndi ay armes indi ko ci réew mi dugal ko te armes yi newul ci suñu militaire mi fenn quelque part ci benn conteneur quelque part kan moo yore armes yooyu force spéciale loolooy force spéciale leneen lu nga wax ne force spéciale ay tiaxan parce que man force spéciale boo ko waxee c'est au moins quelqu'un qui sait manipuler ben paaka mais ngay indil ma mère Amidia naan moy force spéciale xam nga da ngay tiaxan quoi. non amna boy yu ma. amna boy yu ma dajeeg prison ñu ne ma ñun grand ay transaction wu. war yi xaw ma yooyu la ñu def waaw di ça yooyu la ça dit que tiaxan la rek parce que amuñu du dagg est-ce que tu sais que. le ministère de l'intérieur non ministère de l'intérieur du Sénégal. Mhm. depuis Macky est arrivé n'a jamais su contrôler le renseignement ma rappelle-toi le premier ministre de l'intérieur c'était qui Mbaye Ndiaye. Mbaye Ndiaye qu'est-ce qui s'est passé avec les. plan de l'indépendance le les Tiantakoum, parce qu'ils n'avaient pas contrôlé le renseignement. Mhm. Maki, ces arrestations à tout bout de champ. conditionnées yi nga koy c'est parce que amul le renseignement le ministre procureur toogul y a des rebelles yu dugg. fii Dakar. non xam nga loolu may ma la rebelle yi nga xam ne mënuñoo du génn romb Chor nga ne rebelle bi jóge na ci biir àll bi romb ah romb gambi, romb ci mi xam c'est insulter même notre armée. mais moom laa la wax c'est-à-dire que le renseignement est devenu du n'importe quoi dans ce pays.

état du Macky état euh, nguuru Macky Sall da koy souffrir le renseignement avec la communication. Quand nga renseignement mon problème foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que au lieu de xool. Mm-hmm. lu essentiel ci dëkk bi. ñu ngi mettre sous écoute à le téléphone. di eh mettre sous écoute chat. oui c'est ça di xool li muy def ak lu mu def. alors que ñooñu mënuñu yëngal état defuñu dara lu war a. oui yàq état au lieu ñu focus. sur l'essentiel. non non. C'est que ñu jaawalee renseignement ak. la preuve man dama jàppee xam nga lan la njëkk a def. sama téléphone la njëkk merci téléphone <laughs> parce que Pape dañuy des renseignements et espionnage espionner un Pape n'est pas forcément chercher des renseignements. Mm-hmm. donc beaucoup, réew les am ont été renseignements. renseignement daf ci mm-hmm. et j'ai l'impression que ñuy renseigner ku nous da ngay renseigné parce que dafa am. koo renseignements, dafa am koo jege. Mm-hmm. renseignement est favorable pour lolé. mais si on renseigne bien ce président là daaw ci décembre ci lay wax du troisième mandat la défaite et la faillite ou bien la défaillance des renseignements généraux ou du renseignement en général au Sénégal weesuwut Macky bëgg a def troisième mandat. non weesuwut s'il était bien renseigné. s'il était bien renseigné. Mhm. kon wax na bu yàgg ne man banaa. waaw non s'il était bien renseigné normalement. Mhm. c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal un président une majorité à l'Assemblée nationale. oui.

je suis convaincu, je fais partie des gens qui sont convaincus que demain, la mobilisation sera très forte. Je ko Je dama gum le suba di convaincu. génn la détermination full ak fayda. taxaw ko nga bëgg du Je suis dama après ci étape bi. bi libérer les prisonniers xam nga ko xam nga ñu dem Abdul ci mbirum ngor ci jafé sénégalais

ñu yow suñu grand frère nga ñun ñu nekk sa petit frère nga ñëw toog ak ñun wax loo xam ne après da nga ko l'image que ça renvoie regarde au Sénégal bu njëkk ba góor fit góor fulla jigéen gàtt tànk mais maintenant les proverbes au Sénégal xam nga la wax waxeet maa tey du ma ne oui du ma non c'est des contre-valeurs il faut que ñu jóg ci et je pense qu'il est encore temps et le dialogue bi nga bëgg mu sincère

bilaa ñu ne sé ak atu Macky Sall ak mënoon tej hmm bakkan yi firta bari won ci nguru Macky Sall. hmm han dafa ñaaw. c'est que l'histoire de tiendra c'est que l'histoire de retiendra. parce eh, que état continue de la. continue de la kenn du benn pont kii mais autoroute à péage bi wada ko sumb. tay ji mom moko continuer ko du deug te kay ñëw day continuer. kon buy ñëw da koy continuer wat ben lay doon rek voilà mais. wad boy bind ci livre démocratie. ay chapitre nga ko ci consacré. Ah, parce que loolu la taxawee ci réew mi. ah ça c'est vrai kon nag euh, suba. Euh, pàcc bu njëkk bi mooy huit bu nit ñi yeewoo nañ jël drapeau vert jaune rouge ñiy takk ko seeni oto ñiy téye ko ah laata ngoon si manifestation ba. Mhm. pour wane ne Sénégal jóg na taxaw pour lan li ñuy xeex mooy réew mu démocratique. réew bu ñu respecté liberté yi. liñ tëj ci sénégal yi bari na. bari na bari na bari na kaso yaa ngi fees del te détenu ñu ngi ci grève de la faim mais yéen a ngi imaginer rek bu détenu yëngatu woon ci kaso yi fan lañ jëm. mutinerie bu rëy moo fi naroon a am. moo fi nar am am jaru ko président vraiment teggil sa tànk ci pédale bi waaw tegg ko tuuti ah jërëjëf Thiat. Je le sant de la gërëm ci ñëw bi nga ñëwoon tey ci biir émission autour du micro. di wax euh, gars yi incha allah kon ñu continuer abonnement yi ci chaîne bi YouTube et en même temps aussi mën ngeen ma top ci Twitter ak euh, Facebook. et puis euh, di leen jox dig daje suba ñu xool situation bi ni muy demee ba di am beneen gan tamit ci autour du micro jërë ngeen jëf.